leen ñu nuyu saa su ne di leen tiitaroo di leen safoo saa su ne di kontaan bu baax suivre bi nga ñuy suivre sur Rio Plus tey nag yéen ngi seen émission yoonu demi-finale noonu lay demee ba si ne tey rek ñu ngi fi nga xamante ne mooy euh, déggoo sant yàlla ma ànd seeg euh, Max Polodio ñu daal di xool waa déggoo sant yàlla ni ñuy préparé seen euh, demi-finale kon boog Max da nga may topp rek ma xool waa déggoo ni ñu préparé li nga xam ne mooy seen demi-finale avec Rio Plus lépp 那个，我那地方，我那那。 waaw ba noonu rek maa ngi taxaw ak euh, président de l'AIC Deggo sant yàlla ma daal di koy bàyyi mu présenté wu rek président maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay la maa ngi lay ziar baax di ziar euh, ki nga àndal soxna si nga àndal. en tant que président de l'AIC di nga ma mën a wax nan nga ñu préparé li nga xam ne mooy seen demi finale bi nga ñu war a fubal suba. waaw waaw sant yàlla rek AIC Deggo moom ñu ngi suñu 33e année yàlla mi ngi dimbali nag euh, demi finale yàgg nañ ko fubal. donc di gën a ñaaxaat nit ñi rek surtout les supporters si discipline bi te xam ne football moom a boo xamante ne résultat immédiat la donc l' équipe est là les supporters sont là donc aussi on a mis a dem remporter incha allah euh, demi-finale bi te am nañ si yaakaar bu baax a a ñaax ñëpp ñu gën a jàppal rek xam na nawetaan moom aussi bu nekkee si koñ nit ñi di si teg seen loxo dafa am lu tax la tax ñu si teg seen loxo donc ñi ngi remercier ñi nga xamante aussi ñuy accompagner ASC bi sur les plans nag di ñuy jox rendez-vous supporters yi demee incha allah ñu ñëw gagné si jàmm ASC Walidane waaw en tant que président ba tey tamit euh, mën lan nga constaté sa équipe bi ba xel mën na dal. waaw xel mën na dal parce que cette année dañu am euh, benn benn benn atu boo xamante sunu doom yi nga xam daan jógee fii dem football fenn ren gi dañoo ñibbisi ñoom ñëpp ñu football si hmm? donc ñi fi nekk ñëpp doomu dëkk bi leen macha donc mu nekk loo xamante ñoom aussi depuis ñu nekk si dëkk bi mosuñu fi gagné benn trophée fii si dëkk bi trophée yi nekk na si dëkk bi yëpp ñoom gañew ko donc ren nag mu nekk seen année donc moo tax enjeu bi aussi mu amoon importance ndax wax fa dëgg na yàlla xale yi dañ leen ko yéene te ñoom aussi dañuy yéene dëkk bi loolu donc loolu moo tax enjeu bi aussi coupe bi moom di ko négocier moom très sincèrement négocier ñu ko de waaw Wally dana am na problème <laughs> mais Wally daal nee nag yéen a am problème waaw mais xam nga xam nga seetlu match match dafa xaw a euh, moom sama ay nit dafa nekk le président zone mi Iba c'est mon ami dëkk bi dañ naan derby Laye Diop Iba Iba doon wax si groupe bi ne du leen may dara. waaw gis nga gis nga gis nga derbi la quoi Ladio Iba c'est un c'est frère aussi un na moom daan na daan participer si ASC Deggo donc position bu mu am position boobu la naa ne moom dina bàyyi ASC Deggo dóor dóor bu sedd wala daan ñuy àndaat xam nga mooy loolu quoi. naa di nga wax tuuti si violence bi def naa violence bi ni mu ko gisee nan nga ko gisee lan nga si mën a wax. waaw di ko di ko di ko di ko naxarul nag di ko naxarul ndax en tant que sportif en tant que koo xamante ne aussi personne morale nga si li nga xamante aussi moom lañ bokk dafa nekk loo xamante du tax nawetaan avancé ndax euh, dañ naan foo axree la tey violence saa bu saa bu amee rek ay doom ñoo si am ay ay ñoo am aussi loo xamante ne du leen neex boo xoolee tey joueurs yi nga xamante ne équipe yi nga xamante ne leen aj mais joueurs yooyu tey seen carrière tey boo xoolee boo teg une année deux ans footballoo am na lu bari li mu wàññi si yow donc war nañ mën di sóor xam nga xale yi nga xamante ne aussi ñooy ñëw stade parce que man souvent dama koy faral di wax supporters yi parce que da gis ay dirigeants nekk si équipe bi di gérer di gérer xamoon nu ñuy def ba dem stade ba fubal yow benn 500 am ñëw dugg stade toj match bi dem sa kër toog commencé saaga donc loolu aussi neexul daal neexul donc ñoom ñëpp dañ leen di dañ leen di wax ne aussi équipe bu jege sa kër dem stade da ngay dem pour gagner mais nag victoire yàlla ko leen mais aussi ñoom tamit dañuy dañuy lem seen i bagage dem ñibbi yow aussi il faut que nga am esprit fair play boobu xam ne tey ji mën ngaa gagné bu subaa ñu gagné la man boobu loolu laa gëm awma pression si benn match nag lu xew rek incha xam naa ne aussi li ma mën def naa ko yàlla moo may may te yàlla moo may xañ loolu la quoi mais président nga gisee émission yoonu demi final bi xam te ne waa Rio Plus ñu ngi def dugg si équipe waaw benn di leen sant ndax euh, vous êtes des li ngeen def ni aussi deful lu du promouvoir nawetaan parce que nawetaan aussi li koy mën a promouvoir mooy lii nekk ay jeunes aussi nga amat benn occupation wala nga am leneen loo xam ne ko war a def nga ne non non xaaral ma jàpp si promotion nawetaan loolu kenn mënu ko fay donc di leen ñaanal télé mu nekk yokkute mu nekk télé askan bi nekk télé boo xamante ne waa doomu tëng yi dañ si gis seen bopp waa doomu tëng yi aussi dañ nga xamante ne dafa bëgg a si yoonu baax jàppale ne ASC Deggu mu ngi leen koy ba noonu rek maa ngi taxaw ak euh, vice président des supporters seen émission yoonu demi-finale ma bàyyi ko rek mu daal di présenté wu copain maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. yaa ngi maa ngi sant yàlla bu baax a baax. bi ak sant euh, Adama Diaw. Mhm. sant yàlla laa dëkk. Mhm. di membre si ASC Deggo quoi. Mhm. voilà ñu ñëw fekk leen ngeen ñu entraîner pour préparer seen seen demi-finale bi nga xamante ne moom ngeen ko am suba noonu koy préparer. waaw ñu ngi préparer en masse dëgg yàlla gars yi ñu ngi ci bu baax a baax a baax fi ñu war a dem dem nañ fa li ñu war a liggéeyante aussi liggéeyante nañ ko len mhm. daal moo des demee ñu ñëw confirmer quoi valider lépp dem suñu jël euh, fas yéene dem football ji final allah jël ko ci neexee yàlla suñu borom. si xam naa équipe bi nag ah. xam naa ko nii nii mhm. waaw mais mënu la wax lu bari ci moom vraiment naa ne daal gëj na dem demi final tout mhm. dina ko jaral aussi dina ko jaral daal mais nag moom match bi na jàpp ne lu mu ko jaral benn ñu jaral nañu fukk quoi. mais équipe bu dem bu gëj a dem demi final kooku da koy da koy jaral mu tay la ba kanam de. waaw mais d' accord qu'importe ñun aussi tay ah. war a def nañ ko daal leen daal la ñuy xaar suba jot incha allah ñu confirmer waaw gagné mooy loolu. maa pare ngeen si tous les plans. pare nañ ci lépp waaw ragaluñ ci ragaluñ dara it pare nañ ci lépp quoi vraiment. pare ngeen si plan yëpp. pare si plan yëpp dañ nekk si kaw yëngal joueur nekk si suuf yeeg. allah noo gisee sa waaw équipe bi ni ñu ko gisee rek comme ni ñu ko yàggee di préparer suñu yeneen match ak match yi rek mhm. waaw équipe bi wax dëgg yàlla dal na suñu xel bu baax a baax a baax waaw mooy loolu rek. léegi en tant que vice président des supporters mën nga ma wax si violence bi xamante ne moom lañ constaté temps yi rek si xamante ne mooy stade te temps bu njëkk ba fan football doon na réunir doon na daje ay équipe équipe da ngay gis ku ñu da ku ñu dóor sax nga dem sa ah, sa dem sa koñ def fuural def meew ngeen daje mais léegi loolu yëpp amatul yooyu yëpp nañuy gaspiller li tax loolu lan nga ma mën a wax si violence bi xamante ne moom lañ constaté stade. en fait vraiment moom violence yi kenn rafetlu ko quoi waaw kenn rafetlu ko sur tous les plans nag football beeg làmb jeeg yëpp maanaam loolu nit nit mënu koo rafetlu ci àddina tey nag je peux dire gis nga football dafa war a di boole mais pas muy féewale tëngeet ñoo ko bokk stade bi suñu stade la ñun waa tëngeet même bu jàpp naa ni même bu xeex dee am sax war ñu xeexee si biir stade donte warul am même bu fekkee dafay am sax warul ñu ko defee ci biir au moins ñu génn stade te nag tëngeet ñoo ko bokk de ñun jeunes yi ñooy defar tëngeet gis nga bu nawetaan jeexee ñun ñëpp benn dañuy doon mais en dehors euh, bu nawetaan ñëwaatee nag moom nga gis gars yi commencé xaajaloo ak yooyu alors que jaru ko quoi sport la dañuy ñëw foo kafre ñun ñëpp am nañu occupation mais tey bu ñu ñëwee juste ko da am amul ci football moo tax bu ñu wàccee dañuy jël suñu temps dem stade toog fa ba quelques heures bi ñu dem quoi waaw vraiment dañ bëgg football mooy loolu. ok jaajëf maa ngi. ok jaajëf taxaw ak euh, capitaine ASC Deggo sant yàlla ma daal di koy bàyyi rek mu daal di présenté grand nuyu naa. waaw maa lay ziar. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax. tur bi capitaine de l'ASC Déggo waaw. tey nan ngeen ñu préparé seen match bi yéen ak waa Walidaan te xamal ne tamit Walidaan du équipe bu ndaw. waaw comme on dit équipe bu ndaw moo amatul ñu ngi préparé match bi comme ni ñu doon préparé les autres matchs. Mhm. di wax ne c'est match à gagner comme les autres matchs et qualification moom équipe bu ndaw bu ko fa yaakaar quoi donc équipe bu ndaw ñu ñëw ñu gagné Waly Daan si jaam ak salaam fair play rek quoi incha allah. xam nga ne euh, bi jaral na ko lu nekk. waaw d' autant plus que su ma juumul mosul dem final. waaw donc ñun aussi day mel ni mosuñu dem final ASC Deggo na coupe jëlati coupe mais dafa ni mosuñu dem final parce que comme ku mel ni man capitaine laa ça fait presque 15 ans ma maa ngi jaral comme ni mu leen jaralee rek ñoom. waaw daf ma jaral. lan ngay indaale suba. dóor rek bu soobee yàlla ak yonent bi dóor si jàmm ak salaam. waaw bu soobee yàlla dinañ am ndam bu soobee yàlla ak yonent bi préparer suñu final sereinement. préparer sur tous les tous les plans. non tous les plans les joueurs sont là ils sont prêts on nous a bien préparé l'équipe a bien préparé l'équipe euh, technique a bien préparé les joueurs sur tous les plans daal sur le plan mental physique et tout ça on est là quoi on est là voilà macha allah yàlla yàlla mottali li des rek ba ñu joué ak salaam. en tant que capitaine lan nga gisee violence bi nga xamante ne moom nañ euh, constaté récemment nga xam ne mooy Esat. non c'est à déplorer c'est à déplorer c'est à déplorer d'autant plus que ñun ñëpp ay Rufisquois lañ ay jeunes lañ ay mbokk lañ sax d'ailleurs quoi ay mbokk lañ ñun ñëpp ñoo bokk waaw comme ku man man terrain bu ma dem football à ku nekk jàppee jour bu nekk noonu rek coono coow du am quoi ñun ñëpp ñooy toogaat autour d'une table ñooy waxtaanaat ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc violence yooyu moom mën na ñàkk kuñ dóor nga ñibbi dans le fair play loolu rek laa ci jàpp quoi en tout cas ñun ASC e on a été toujours ñu fair play pour toujours ñun ñëpp ñëpp ñëpp ñi ñuy dajal ak ñëpp maa ngi leen di ñaanal ñu ñëw ci jàmm ñun njabi ñu ñëw ci jàmm ñu gañe leen ci jàmm ñu dem ñibbi jàmm ak salaam. sa dernier moo rek ak nga wax ñu nan nga gisee émission yoonu demi-finale. waaw waaw waaw sama dernier moo nag mooy sensibiliser sensibiliser tout Rufisque du du sant yàlla rek c'est tout Rufisque par ma voix xam nga ma petite voix je sensibilise tout Rufisque à faire des navétanes sans violence parce que foo la kii di rek. wax foo wax xol bu xol xol bu sell ak xel mu sell donc nañu nañu ñëw fo daal ñu ñëpp ñu dem ñibbi ku ñu gañee nga def ndànk dem ñibbi parce que foo la déwén am na déwén amaat na quoi incha allah waaw léegi nag le mot pour la télévision très bien donc nag li mission boo ñu ngi koy rafetlu di ko di ko kontaanee di leen wax di leen jaajëfal di leen wax fi ngeen teg seen tànk foofu la rek pas a pas xam nga ça va ça va lépp dina sotti incha allah yàlla yàlla taxaw leen bu baax. jërëjëf Kapi jaajëf jaajëf Kapi ok. ma taxaw ak coach su Deggo sant yàlla ma daal di koy bàyyi mu présenté wu rek coach maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Rio Plus. Mhm. Euh, di kontaan seen teewaay fii. Mhm. Euh, di rafetlu tamit seen liggéey bu baax a baax a baax parce que gis nañ à travers YouTube. Mhm. Euh, yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo au niveau Tëngéej. te lii lañ manqué woon. parce que tey li ASC e di liggéey lu bari am na loo xam ne daanul feeñ. te yéen yéen a koy feeñal. Mhm. Eh, ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla na liggéey bi jëm kanam. jaajëf coach léegi en tant que coach eh, di nga ma mën a wax na nga ñu préparé seen demi-finale suba yéen ak waa Walidaan. Mhm. waaw waaw préparé nañ suñu demi-finale comme nañ ko war a préparé. Mhm. mais xam nga demi-finale du bokk ak yeneen yeneen yeneen match bi préparé nañ ko physiquement techniquement ak techniquement préparé nañ ko lu ñu mën daal. te ñaan yàlla suba incha allahu rabbi ñu am ndam ci kaw waali daan quoi. équipe la boo xam ne nii équipe bu naxaree manœuvre la mais seetaan nañ leen euh, xam nañ seen qualité de jeu euh, te incha allahu rabbi dinañ leen bëtt suba. xam nga fi ngeen koy jaar xam nañ fi ñu koy jaar. <laughs> <laughs> léegi parce que tey suñuy élément euh, gëm nañ leen yor nañ xale yoo xam ne mën na ne tëngëj bu ñuy wax fii ku fi daax fubal tëngëj ci doo ci génnee jéego bu sant yàlla waaye. parce que ñun rek lañ fi am lébu gi ñu maa leen di nuyu au passage nee na ñun ñooy seen centre quoi parce que dañuy ñëw fii jël su suñuy jour dem te du tee ñun dañuy am problème mu classé quartier bi dafa nekk quartier boo xam ne euh, euh, quartier football la jeunes yi terrain bi gis nga 24 heures sur 24 boo fi ñëwee dimanche 17 heures au 18 euh, heures gars yi dañuy football terrain bi fii moo tax ñun mën naa ne instant bi ñu toll nii mënatuñu ñàkk joueur voilà te tamit liggéey bi ñuy liggéey si si ASC e bi euh, liggéey bu metti la liggéey bu sérieux la euh, dëkk bi ñëpp jàpp nañ ñëpp génn nañ ku si nekk jël na na jël na demi final bi def ko comme sa demi final te incha allahu ren jii incha allahu rabbi ren ji euh, dañ bëgg jël coupe bi dañ bëgg jël coupe bi moo tax ñun xalaat pour le moment football la nag football la parce que sa équipe il fa que nga respecté ko sa adversaire fa que nga respecté ko d' abord mais ñun waali daan moom gëm nañ ni incha allahu rabbi suba dañ koy jàll. incha allah ñu bàyyi nga daal di ñuy wax si violence bi xamante ne temps yëpp moom lañ constaté fi nga xam ne mooy stade Ngalandou Diouf te ay temps fair football fair play la woon revenir la woon ay ASC mais léegi dañoo gis stade gars yi ñi ngi sànnante xeer ñi ngi dóorante ñi ngi jàmm du leen ñu ngi koy def te dégg naa nag yéen côté si ñu si bëri yéen koy def loolu ndax yéen a jël seen i jour yebal ko si camp yi yéen a ko sànni li wala këppi lu ñuy ñaawlu la parce que sport boo xoolee fooloo ak ree moo tax ñu bo ñu def ko mooy sport parce que sport ñett rek ci am victoire défaite wala niil mm-hmm. euh, képp ku ko pare pour def da nga war a accepter ñett yëpp mm-hmm. boo ko boo ko mënul accepter rek nekkoo sportif te fekkee dañuy wax sportif dëgg dëgg dëgg mm-hmm. ñii di xeex fii du ñu ay sportif parce que boo gañee tey suba dañ lay gañee mais imaginel tey man ma gañe équipe mais ay supporters dem ñibbi man ñu gañe ma mën a demay xeex mais kon ana ana ana ana yar ak teggi ah amatul parce que ki ngay gagné dañ lay kii gagné dañ koy gagné football mënoo ne damay football match yëpp ñu damay gagné mais tey gis nañ fi ay Real Madrid ay Barcelone ñoo ñu gën a kawe fuuf mais dañ leen di gagné ñun dañ football ku mënul ku mënul muñ ñu gagné la ci football non demal nga toog te nag képp ku naan laan coach yi ñoom ñooy def loolu loolu joueur yi non ñu ngi ci toor parce que xam nga moom équipe am lay lay calculer mais nag dina am ñu ne ci ginnaw yaa ma gën a xam nawetaan li mu làmboo ñooñu nag ñoom ñooy defloo loo yi loolu mais amul benn encadreur bu xam di côté di di di di def loolu ay ay jour loolu moom kenn du ko rafetlu te tamit Tëngéej ñun dañu war a xam ne Tëngéej dëkku football la euh, euh, Tëngéej nga daan gis équipe nationale mu am ñetti joueurs u Tëngéej wala ñeenti joueurs Tëngéej ci benn ci équipe nationale Sénégal mais kañ la am war nañ mën a xoolaat suñu bopp war nañ mën a xoolaat suñu bopp. ñu bàyyi nga daal di tàggatoo rek. Mhm. waaw di di rafetlu di rafetlu interview bi rek di kontaan ci yéen di wax Réew Plus. ca kanam yàlla na ni ca kaw ca kanam jaajëf. <laughs> lii laa leen indiloon fi nga xamante ne mooy euh, déggoo sant yàlla. Euh, seen yoonu demi-finale yoonu demi-finale nag ni lay demee tey ma ànd seeg Max Plodio ñu daal jox dig daje ba beneen te du fàtte Black Studio benn yoon tey ñooy suñu sponsorisé nee la képp ku am événement bëgg lu baax bëgg image am qualité contactel Black Studio numéro yaa ngi noonu du daw si écran doo ñu contacter foo mënti dem cérémonie mariage baptême ak lépp lu mu mënti doon shooting yëpp dinañ ñëw waa Black Studio dinañ di ànd ak yéen te foofu moom doo lañ contacter jàmm kon boog ma daal di dox deg rek ba suba si beneen émission yoonu demi-finale ak Rio Sport Plus.